Luna, euh, sommes combat Ama à 95%. Ah, mais mais est-ce que vous avez avance risques est-ce que risque par rapport la carrière Ama. Ama C'est risque risque kon daal jàpp ngeen ni que Ama mën na sauver honneur Pikine ginnaaw Modou Lo jaloor yi mu jot a def biir Ama gagneur la. mais gagneur face à Ama gagneur la ku mun a daje Ama gagneur la. moom Modou mës nañu daje mbapat ñu ci bari di ci ci wax Ama moo ko daanoon Modou moo ko daanoon est-ce que mën nga ñu dellusi yow ci événement boobu. Modou moo ko daanoon. waaye boobu bu mu koy daan Ama sóoru ni la demee da

mais su tegoo ci yoon bi ngeen ko daan teg dégg seen conseil mën na am opportunité. waaw loolu moom da koy il mu déglu koy il mu tegu si li koy teg rek waaw. jërëjëf merci.